bismillahi arrahmani irrahim an abdillahi bni umara radiallahu anhuma qaal jëlee nañ ci suñ sang abdullahi ibnu umar yal na yàlla boole leen gërëm mu ne samictu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaquul dégg naa sayiduna wa moolaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mu ne man axabba an yasila abaahu fi qabrihi falyasil ixwaana abihi bacdahu képp ku bëgg a jokk baayam te fekk baayam deena ba ne ci xabroom falyasil ixwaana abihi bacdahu na jokk mbokki baayam yim fi baay xadis ji ibnu xibaan moo ko solooj te xadis ju wér la yonente ñuy jàngal ne jokk suñu woy jur yi ak jox leen cër yiñ xeeyoo yemul rek ci bu ñuy dund waaye buñ fi jógee it dañoo war a fonk seeni mbokk ak seeni jege ñaale ba ci sax seeni xarit ni ko waxee ci jeneen hadis ju saydna abdullah ibn omar mi solo mu ne dégg na yonentu alayhi salaatu wassalaam mu ne inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abiyi gën jaa baax ci mbaax mooy doom jokk xariti baayam doom jokk xariti baayam yal na yàlla waaw xadis ji mu ci muslim yal nañu yàlla tabaraka wa dimbale ba ñu mën a jokk suñuy wayjur ni mu waree ci seen dund ak gannaaw ñu fi jógee te defal ñu xéewal goog ci suñu njaboot bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim